Euh, asalaamaaleykum alaikum internet yi tay ñu ngi fi ci Joal ñëw fekke si ben final bu wa taxaw Joal organisé muy final bu wara a opposé ñaari équipe vraiment euh, muy ben équipe bu dëkk fajout ak ben équipe bu dëkk Joal équipe bu fajout bi c'est composé c'est une c'est une sélection bi dëkk Joal moy jàppoo donc muy final bo xamné wax dëgg yalla ñaari équipe yu ko mérité la parce que c'était un total de 24 équipes ñoom ñaar ñu ñëw ci ba final ñu ciy séentu nag autorité autorités yu bari yoo xam ne ci Joal lañ dëkk war ñëw teewee ci final bi wara a vraiment euh, de leur présence final bi nga xamné finale final bu am solo la waaw comme niñ koy waxé rek bu ngeen ñu topé di ngeen gis final bu neex neex neex. asalaamaaleykum sëñ bi la nga def. ah maa ngi fi gën yow noo tudd. Euh, Abdoulaye Diakhaté. Abdoulaye euh, yow kan nga faral ci final bi tey. Euh, final final bi maa ngi faral Kébémer gañ daal Kébémer gañ laa ko mën a tuddee. parce que ñaar ñëpp ay doomu commune bi lañ en fait noon nga ko mën a def mënoo faral kii bàyyi kii te ñun supporté wuñ kenn Kébémer gañ ci ñaari final yëpp. jaajëf nice na. grand nga def. yow noo tudd. Ibrahima yow kan nga faral ci final bi. man xar yalla laa faral xar yalla tax nga faral xar yalla non samay dëkkandoo lañ quoi man ñom ñoo bokk ben koñ. xar yalla dekk quoi. japp nga ne ñom ñoo dàq football wa Fadiouth. non amna naa bu dakk football ñom la yene dal ndam li dal waaw. merci. merci na nga def. maa ngi fi. yow noo tuddu Adama la tuddu Adama yow kan nga supporter ci final bi. wa xar yalla japp nga ne wa xar yalla ñom ñoo dakk football. waaw ñoo dàq football te incha allah dañuy gagné. très bien. tur nan la. Euh, Lamine laa tudd. waa Lamine yow euh, final bi tey kan ngay supporter. man waa Fadiouth laa supporter parce que man waa Fadiouth laa waaw. ok léegi mais jàpp nga ne équipe bu bi ñoo dàq football équipe bu Joal bi wala. waaw si sama gis-gis moom xam nga supporter moom mooy loolu. supporter amul lu ta mun ta wax sa supporter la. waaw man moom sama équipe laa gëm moom laa yaakaar. waa te gëm naa ne moom confiance mi foofu la jëm. waaw su pour su a taajoo daal ma foofu laa jëm daal waaw coupe bi moom foofu rek Fadiouth rek waaw. d'accord bon chance. ok merci. mais tur bi nan la. Vigi. Vigi euh, tey nan nga gisee final bi. final bi vraiment dana am jeu moom parce que ñaari ñaari équipe yëpp dañoo kii dañoo fort waaw dañoo fort te xam naa leen bu baax tamit waaw. ok yow kan nga jàpp ne mooy gagné. dana am jeu de mais match bi moom kay du yomb noonu pour nga mën a prononcé ni lii mooy ñii mooy gaañ moom kay du yomb noonu waaw mais match bu nekk lay doon daal waaw. merci beaucoup. si jaamu kañ. waaw ah, tur bi nan la. man Bart. yow kan nga faral ci final bi. bon man moi je suis du côté de Fadiouth <laughs> waaw. mais est-ce que jàpp nga ne équipe bu war na mën a gën a gagner match bi. waaw waaw parce que am nañ capacité gagner gagné match bi côté physique côté technique am nañ ay individualité yoo xamante ne nañ def différence à tout moment quoi merci et bonne chance. merci beaucoup. <laughs> ñu déglu suñu hymne national ndax li fait, def ci ñun dafay waaw kon rapidement may fàttali tournoi de la fraternité organisé par le parti politique taxaw Sénégal d'accord donc nga xam ne ñoom tey ñoom ñoo ñew fi ci Joal fekk ci seen responsable des jeunes muy Malik Faye bala di ñëw ñu amal tournoi bi y avait 24 équipes ñu jonganté ba ñaari équipes yi dess ci moy finale bi tay nek une fête de la jeunesse may wax né toutes les chapelles politiques sont là présents ndax nak xam ngeen né lolu moy Joal Fadiouth bu kenn xewlé ñëppay mobiliser wu ñew ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon ñu dem ñu déglu suñu hymne national. c'est pour unir les personnes mais pas pour les diviser waaw mais monsieur le maire Paul Sène waaw sama nijaay Mamadou Kane waaw Malick Faye nag tey yow da nga delloo si waat Joal da nga dundalaat Joal kan tonton kontaan nañu waaw ndax lii mooy Joal Fadiouth kon ni ko monsieur le maire

ñu contane ci mom muy ben jeune bu engagé bu am solo kon contane nañ ci wa taxaw Sénégal Khalifa ababakar Sall le président Khalifa Sall contane nañ ci mom ah bas bi macha allah kon malik fay ah may nuyu arrivé sama football Ndong ah fara contane nañ ci yow ma ngi seen ñom Amadou Ka ah macha allah ma tay tay tey tay bi c'est spécial wa François boobu tay mu ngi renouer avec les anciens kon ni rek la mën a Wa waaw kon Badara mu ngi dem joxe coup d'envoi rapidement comme ça match bi daal di démarrer ci diganté ñaari équipe yi nga xamné tay final bu nar a neex la ndax ñep xam nañ ne à Fadiouth xam ngeen né c'est un grand village de football waxna ko sànq ay grand footballeur de fa. ndax fu ma nee ñoom ñoom cakala ak ñoom cim-cim ah ñooñu j'étais de très grands joueurs te nekk waa Fadiouth suñu ñëwee Joal ASC jàppoo bu xaar yàlla ñoom tamit nekk fële ci sanc nekk ñoo xamante ne dégg naa aussi football rek la ñuy def ah attention kon coup d'envoi baa ngoogu di démarrer waaw muy xew fii kon gars yi mu ngi noonu joxe nañ coup d'envoi bi ma bëgg ma bëgg gars si kanam tuuti dina ñëw ci délégation yi nga xam ne ñoo fi nekk te ñëw fekke si bés bu màgg bi un jeune responsable nekk jeune boo xamante ne jeune bu Joal Fadiouth kontaan ci moom la Malick Faye kon joxe nañ coup d'envoi bi moy lu ama am solo kon kontaan nañu ci coordinateur national des jeunes du mouvement kontaan nañ ci yow man turum la jàppul kon waaw match bi démarré na sama gaay fi mu entre sélection bu fajut ak jappo bu xaar yalla bi amagul rouge match baa ngi daw fi mu tollu ni attention attention attention ci bir surface bi a dégager nañu bal bi fi mu tollu ni waxna ko légui wa Fadiouth ñoo sol les bleus sol rouge ah maa ngi seen ay veste yu rafet yi dugg ci sama gaay ay veste cravate yu tangi ci maa ngi seen sama gay ben benn délégation buy dugg ah xawma bo ñan lañu nak waye waaye seen veste rafet na ak seen cravate ma sha allah ah maa ngi seen sama grand Moussa Sidibé Moussa Sidibé ñu ngi lay ziaré grand di contane ci sa taxaway yak sa doomu ndey grand Tiali waaw seen taxaway ci stade François Bob contane nañ ci yeen ah ñoñu dafa melni wa nawle teranga lañu sama gaay malen maa di sen ñuy dugg si may wa nawle teranga sa grand nawle bi nga xamne ñu ngi jowal di fi def bu ama ama am solo kon soyez les bienvenus wa nawle teranga de jowal kon gay match ba ngi daw attention digante fajut. ak jappo bu xaar yalla Fadiouth ñoo sol les maillots nyosol xaar yalla ñoo sol maillot rouge mu nek match bu serré parce que fi mu toll le match était très ouvert bal baa daw ken mayul moromam dara entre les deux équipes monsieur le maire Boucar wax na ko sànq que le meilleur gagne motax tax foog mu metti wa sama gars yi waa nawle teranga ñooy dugg si nii maa ngi gis ñoom Mamadou ndjay ñom Moussa bouri Sall ah ñoomin président Sogui Sarr ñoomin Pedro ndjay ñom euh, numu tudati Ibrahima Diakhaté ñom yasin jay ismaila Diouf ah ñom sama gay sama gay kontan na ci yeen kan moo jital jiital gunge len suñu jigen suñu chéri yasin jay ah sama gay sen délégation rafet na kontan na wow yeen waaw waaw yaay maaki di len dalal ni ci dugg ci bi nii rek la démé nawle bu maga mag bi ci jowal di def li ngeen di def ci jowal yalla len yalla gëna taxaw yalla gën len fay bayyi gëna a dëgëral seen taxaway seen taxaway rafet na ci dëkk bi monsieur le maire contane na ci yeen kel mo len gungé ki len gungé ci nak di seen grand bu baax di grand Luy Ndiaye Luy Alioune Ndiaye nek feulé ci ministère de l'environnement nek doomu Joal bu bëgg Joal di taxaw Joal fajur, contane nañ ci mom mu ngi and ak suñu yeneen tonton waaw sama gaay contane nañ ci yeen waa nawle bu mag a mag bi kontaan nañ si yéen nawle teraanga yéen a ngi ci dëkk bi ku dem dispensaire ba gis na ngeen def morgue dispensaire bi ku dem fële ci église bu Joal ah sama gars yi kontaan nañ ci yéen nawle bu mag mag bi Ismaïla Diouf ngeen àndandoog suñu ser la présidente Yacine Ndiaye macha allah àndandoog président Soogi Sarr bu ñaawul bi suñu président bu ñaawul bi kontaan naa si yéen sama gars yi Mamadou Ndiaye Moussa Buri Sall kontaan naa si yéen yaay maa ngi nag waaw maa ngi ñëw si ñoom si kanam tuuti kon gaa ñi match baa ngi daw dama doon saluer rek arrivé sama nawle bi nga xam ne ñooy le grand nawle de Joal Fadiouth di nawle teraanga te seen taxawaay rafet lool ci dëkk bi ñu leen di ñaanal yàlla yàlla gën a dëgëral taxawaay bi ak ànd bi te gën a wëral seeni i cër kontaan nañ si yéen monsieur le maire Boucar Diouf wax na léegi nee na le sport boo c'est mon am c'est pour unir les hommes mais pas pour les diviser dans la sportivité dans le fair play que le meilleur gagne c'est ça le sport te nag bu ko waxee dañ koy gëm ndax xam ngeen c'était un grand sportif defe naa fi mu ak le Casa Sport defe naa Casa ñëw nañ ba jon loxo ñu xool la kii mooy Bassirou Samb sama le coordonnateur national des jeunes du mouvement Khalifa taxawu Sénégal le président Khalifa Sall wax naa ko ah moy chef de cabinet maire ah, bu Grand yof ah, ah. moy mo tuddu naka Basirou Samb Basirou Samb hmm. kon mo ngi ni tok hmm. si kanam tuuti dina wacc hmm. yaay maaki woyal ko ben morceau bu ama am solo ndax nak préparer nañ ko ndax xam nga yaay maagi nak ku wara falu ñolay woy de ku ñu woyul do falu <laughs> sama chéri ku bëgg falu de len may xaalis bu bari ñu lay woy di jël seen gamb yi di ci dugal sa tur parfois ñu raay la nga boo ko deful doo falu de ku bëgg a falu daal dee leen jege ndax ñoom ñoo yor bagage bi man nag lu may wax lu ma leer la waaw kon ñu continuer ci final bi kon Malick waaw le conseil communal de la jeunesse ñu ngi fi tew Emilien Ndour mo len fi tewal wa lolu job solo yahya job Yekini Fata Production envoyé na fi une délégation ngolé di président Patrick moko fi représenter waaw kon ñu ngi gërëm ñep délégué de quartier diokh président Ibou diokh mu ngi fi tok ñep tok nañu ma gessu gis sama tonton Ousmane Ndiaye mu ngi ni tok kon mel na ni délégué de quartier yeeg notable yëpp ñu ngi fii toow tey kon la jeune Malick Faye gars dama damaa bëgg ngeen tàccuwaatal ma Malick Faye s'il vous plaît Malick Faye jeune la boo xam ne dinaa ñëw ci curriculum ci kanam mais Malick dafa am yar Malick fii la juddoo ñun ñoo ko yar muy suñu rakk joo xam ne Malick am na discrétion Malick am na yar Malick am na ay teggin Malick joxe na cër Malick respecté na nit Malick intellectuel la كون نك لول ايه نمو تودو سو كورناتور باسيرو باسيرو دنج لا يوبانتي سي خليفه سال بو ديمي غاني خليفه سال لا جينيس دي جوال فاجوت لي بوبولاسيون دي جوال فاجوت دنج كو بوغا خمال نيكو دانيو بوغ مو تيل ني سونو دوم جيدي مالك فاي ندخ مالك فاي كات جن لا بو خامل سي جوال فاجوت اوتنا يينن جن يو بري فيني جن لا بو خامل دا فا مان بوبام jàng na am xam-xam ba mu jang jàng joxe na cër juddoo na fa mu waree intellectuel la il est en phase avec tout le monde amul problème ak jeunesse bi amul problème ak mag ñi amul problème ak Ken. mo waral bës bi mu oté toutes les sensibilités politiques tay ñu ngi ni tok toutes les sensibilités politiques ñoo fi tous les mouvements ñoo fi tous les notables les responsables les délégués de quartier Légui loolu yëpp ñu duggal ko dans le panier jox ko monsieur le maire Boucar Diouf mu ñew en os et en chair ñew présider ci final bi kon loolu motax suñu yobante bo démé nga waxal ñu loolu président Khalifa Sall mu gën ñoo teyel suñu doom Malick Faye suñu rek ndax dañoo kontaan ci Malick ndax Malick kat il remplit tous les critères kon kontaan nañ ci mom diko ñaanal Yalla Yalla nako Yalla gëna taxawal gëna wëral ay cëram moo xam li mu bëgg ci biir xolam yal na ko ko yàlla defal te mu jig ko te ñëpp fekke ko xale bu joxe cër la bu joxe yar bu man boppam kontaan nañ trop ci yow Malick jërëjëf merci beaucoup à Pierre Thérèse Diouf a fait le déplacement ah loolu am na solo doxal tuuti ñu dem parce que il faut ma wàcc tuuti ndax nag euh, waa gars yi may ne diggee ma ñëw dafa am dañu am benn télévision boo xam ne mu ngi Joal ñu koy wax Tekcom Bamba TV te ki ko jiite di sama frère Massamba Seck bi toog di un grand monsieur un grand culturel un intellectuel mu ngi nii nekk Joal di fi def liggéey bu ama ama am solo li nga xam ne duñ ko gis fenn ci yeneen tele yi à Joal tey xele Joal mu ngi nii moom moo koy wone di un grand monsieur Mass kontaan nañ si yow yal na la yàlla taxaw dinañ la seet si incha allah rabbi képp ko am programme daal boo bëgg am couverture boo ko seeti jee di ngeen waxtaan juboo mu defal la couverture bu rafet kontaan nañ ci yow man nag dinaa la seet si parce que am na lu ñu war a liggéey lu bari ci culture waaw dinaa ñëw wa monsieur le maire ah contana wa Mali le coordonnateur départemental de Taxawu Senegal. alen barara jaxate mo ngi fan adjoint au maire adjoint au maire da ngeeñeen ah macha allah kontaan nañ ci yow naka ngeñen yen nga ngay yëngal bu baax baax ana monsieur le maire macha allah kontaan nañ symbolise beaucoup de choses politiquement au Sénégal kon yal na leen yàlla jàppale waa maa ngi ñëw si ñoom mairie maa ngi ñëw si sama chéri yi xam nga ñoom ñëpp nag man maay seen chéri ku si sa sa jëkkër ñi dese yal nañ fi des ba si kanam mais ku sa jëkkër dem rek ma ne la doo nekk veuve kaay ma lonk la si ginnaaw moo tax ñoom ñëpp yal na leen fi yàlla bàyyi ak seen sañse yu rafet kontaan naa si yéen waa dama kontaan monsieur le maire waa kii du Pierre Thérèse le grand maire mais qui était un peu absent nag dégg naa dafa demoon Portugal dem noosi tuuti Pierre Ndew dem Espagne moom mu dem waroon ngeen yóbbaale monsieur le maire Talla Sène de sincèrement kii nag kon mu ngi taxaw Sénégal ah votre bibliothèque waaye tàccu leen loolu loolu foog ñu tàcc ko loolu xaw ma ko woon ah président Khalifa Sall nag dafa dugg Joal waaxu fi waaxu am fi lu amul ndax monsieur le maire Talla sen di bibliothèque politique ci Sénégal ak ci Afrique ki tam mu ngi taxaw ah macha allah yow nga nek taxaw ah mais attention ah Khalifa Sall nak ah buteelam forna na macha allah euh, soo demee neel Khalifa Sall Amadou Ka mu ngi ah mais yeen dafa melni kon man wa parti socialiste kon dal dafa melni ño versé wu taxaw loolu guma nak dina ko gën wa sama frère uyu ma sama frère bi tok nak ndong waaw ah non lolou lolou xama buma bu japp ni te politique lolou andi wuñ fi quoi legi léegi nasi na si ñëwaat ci kanam musa Keita yaay coordonnateur taxaw fi ci Joal wa mané machallah Khalifa Sall dal su ngeen démé né len ko su ci Joal fadiou na nelaw ginnaawam bandang loolu incha rabbi on aura l'occasion léegi nak waaw petite anecdote waaw waaw un mot d'occasion pour wax ko waaw je vais profiter de l'occasion pour le dire di waxal mu euh di nuyu ñep waaw di profito walé di jël ci allocution yi mhm. mais avant ñuy démarrer ñu nuyu suñu wajur bu goor ak bu jigen dëgg la bi jox autorisation aussi pour ñu mener activité yi. la parce que lépp loo gis tamit il faut nga am ndigal. lu wajur ci li ngay dugg. deug la gannaaw bañ ko amé yow dang koy am ndax sa papa ak sa yaay dañoo bax ndax Ndiara fay mo la jur un grand monsieur bo xamné ne la nekkoon def fi fi def sa yaay mom duma ko présenter ku dëkk kër Louis Gomis mom yaakar naa do doo deful politique. ah mamam député Louis Gomis moy sa mam un grand monsieur kon ñëwal.

ñu tàggu ki nga xam ne mooy li ma wax sunu bibliothèque Fa Talla. Momar Talla Sène. Momar Talla Sène. waaw man bibliothèque laa koy ooyee. dëgg la bibliothèque la. ba ma dëgmalee programme bi ci sunu carte de massification. ci li nga xam ne mooy fi ñu dugg ci wàllu politique. waaw moom mii laa ci njëkk a waxtaanal mu jox ma ndigal. moom monsieur le maire Talla Sène. kon du ñu amee résultat bi kon dafa barke moo tax moom moo ñu jox ndigal. waaye dëgg la tàccu leen loolu dëgg la. te biñ ci amee.

fi may ñëwee nag mooy di gërëm monsieur le maire waa taxawu Sénégal surtout bu Joal Fadiouth mhm. ñoom ñi nga xam ne tey bàyyiwuñ ma benn yoon ci li nga xam ne mooy lii ñu commencé def pour une première parce que lii lancement la lii film bi ñëwagul du ne nee lancement la damay junj monsieur le maire xëy na ñu bëri nañ jàpp ne ñu ngi doog a teewal mhm. activité bu mel nii mhm. mais moom mu ma ñu xotee ci à 7 kilomètres de la borne de la Guinée-Bissau. dëgg mu ngi nii toog. dëkk bu tudd naka. Saamin Balant. Saamin Balant. dëkk boo xam ne. waaw Balant yi ñoo fa nekk. dëgg la Pël. Mangaañ. ma Manoc. xam na bu baax li may wax. dëgg la ñëw na 2014 ma soutenir ko. dëgg la mais nag ñu ne Boucar enseignant yee ko fal. Uh-huh. parce que ñoom moo leen dugal ci enseignant. dëgg ñu ci béet. Mon fait ma que faut me liguer ci sur la paix en Casamance avec l'UASD et World Vision sur la lutte contre les armes à faible calibre

suñ ko defee mhm. un mhm. mhm. parce que vraiment sama kilifa la sama lepp la lepp lu may def dina ko laaj ndigalam vraiment mom, ñu ngi nuyu la population de Joal la jeunesse de Joal Fadiout Basirou Joal Fadiout mu ngi voilà Joal Fadiout tay la scène politique do ko xolé au niveau national mhm. tay li fi am bas mhm. do démé tay toutes les formations politiques sont là. présentes présentes. Mhm. toutes les sensibilités niko sama waa waxe kon tay Joal fadiout on est des adversaires politiques mais on n'est pas des ennemis. té ñun ñëpp Joal fadiout mo ñu ñor. té mom lañuy xey suba ngone goudé ak bëcëk kon tay ma ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp délégué de quartier monsieur le maire la jeunesse de Joal, les autres formations politiques et surtout le Nawle Teranga qui fuma nit sollicité. Moham xam école la. Moham xam lenen la. damay daw ci ñom parce que ñoma ma gën parce que ñoma ma yar ñooy samay nijaay. waaw deug la té fuma ma yobbu yóbbu. yaakaar naa ne du ko rëccu. dinañ fa am taxaway bu rëy a bo xamné dinañ ko fa def. kon munu nangu waaw may def activité bu melni ci bir Joal Fadiouth. waaw te duñ len o ñom ñu jouer sen partition bu parce que ci lu bare bare ñu ci wéccio xalat mhm. ñu ñi accompagner tamit parce que burul dara. Mhm. ñom ñoo ñu yar suñu jarbat lañu. la di gërëm tamit sama mam yi toog. ci jur sama yaay mu ngi ni Rose jam deug la mu ngi ni tok di sa chéri. kon momit yaakar naane duñu ne won waaw yaakar naane kon xew mi. waaw du am xorom. dedet bas. ñi ñol doon répéter barke démb ne la duñu yu am sax nañ ñew kon bas dama bëgg mairie dóoral ko. waaw morceau bi nga xamne ne lañ ko wajal encore une fois ñu ngi gërëm ñep di sant ñep la délégation aussi. waaw délégation bi waaw. bu jógee Dakar. waaw fofu lañuy terminer après nak ma doora dem ci mairie. waaw li nga xamné mom ngay def. waaw la ca des nag ñu dem noppalu. waaw donc y' a Basirou Samb. Basirou Samb coordonnateur des jeunes. Fatick la jógee. Fatick la jógee. dem gunge kilifa gi. gunge woon président Khalifa. mu demoon Fatick am fa une rentrée politique. mu demoon am rentrée politique à Fatick. bañ ko gungee ba yegg. bañ ko gunge ba yegg. dañoo bàyyi lañ doon def ñoom ñëpp. ñu bàyyi liñ doon def. ne tey dañuy dem ce qu'on appelle le royaume d'enfance. ne tey dañuy ñoom ci royaume d'enfance bi. tey Khalifa Sall. Khalifa Sall. ba fa demee. ba nga demee. ñu toog ngeen toog. waxtaan moom. waaw waxtaan ma gisee rawatina kii nga xam ne mooy Pataale Sène moom bi nga xam ne ñoo leen jàngal ba ñuy bind les textes du parti socialiste dëgg la bés bu ko tiimee moom nee na dootul toog ci suuf lay toog parce que mooy sëriñam dëgg la lii maa toog mu toog mu wax ko mais dëgg la moo tax kon nee na moom mhm. on ne doit pas tey mhm. ñuy ñàkk ce qu'on appelle l'héritage de Léopold Sédar Senghor loolu dëgg la tey nee na loolu dëgg la Malick sa ka tuddi mooy ñëw ni waa waaw président Youssou Kayré momit du suñu frère bu baax di responsable politique accompagné de Diène Ndiaye et du conseil municipal Tafa Camara moy nit ku baax momit it Youssou Kayré ñuy contane ci taxawayam ñaari casquette la mu né ñaari casquette la ñëwé forme mouvement politique. mouvement politique. en même temps président de la section football. football de Mamanguej commune waaw. kon tay mom depuis le début momit le stade municipal. waaw et sous.

duma ma waroon duma amone ma amoon sañ waye nak fatik de gu président la. deug la. ah jappo dugal. ah attention jappo jappo dugal na ah 1-0 pour le moment jappo bu xaar yalla bu sanc ñoo dugal ñoo sol maillot rouge ah attention match bi dina gëna neex. waaw ñu tontu ne Malick waaw. ñu jéxal waaw ci la ko ne dem len waaw parce que moom nee na. Uh-huh. tay waaw politique. waaw la parce que amul ben poste uh-huh. politique ba léegi amu ko. dëgg la kon uh-huh. mm-hmm. ndaw confiance. Mm-hmm. Uh-huh. il faut régénérer li nga la société ou bien les gestions. mais mm-hmm. mais parce que nous sommes. biñ ñëwee mhm. mu ne leen dem leen gaaw Joal mhm. parce que man tey li may incarné Sénégal mhm. mooy ma jël héritage yu Senghor dëgg la tey Senghor dafa ne woon Uh-huh. balaa ngay tabax dëkk uh-huh. na nga tabax doomu aadama ya ba pare ngir ëllëg uh-huh. bu ñu yàq dëkk ba waaw waaw doo defaral nit dëkk te xamoo li nga ko defaral du yàggee moo koy yàq dëgg kon tey je lance un message à la jeunesse ñu jàngat gëstuwaat amaat yar jegewaat mag ñi ba tey lii nga xam ne tey sunu Sénégal ñun ñii ñoo ko mën a defar ñu waruñu koo yàq waruñu koo taal tey it duñu àndee doon benn oh, lu nekk mën nañ koo am te on va relever tous les défis du monde jërëjëf les possibles La délégation de Tahaou Sénégal national. Wow. Donc il y a Bassirou Samb, coordonnateur des jeux. Ah, attention. Attention. Attention. Attention. Arbitre attention. Ah OK, hors-jeu. arbitre ah, hors ah VAR amul sinon nous dem VAR mais yaakaar nañ ne monsieur le maire xëj yalla baxna stade bi dinañ fi mës a am var bala yag inshallah waaw. présenter la délégation de national mu waaw donc y' a Samb coordinateur national des jeunes. waaw Al Ousseynou Sy responsable des étudiants de toutes les universités du Sénégal. Mm-hmm. Mame Bokar Sall. Mm-hmm. responsable des arabisans. Mm-hmm. et Abdou Ndiaye ak Lay Ndiaye de Grand Yoff. ñi ñoo représenter délégation bi ñoo bungé si.

ngeen woyal ko nak ay woyu yu neex a neex neex neex kon basiru na nga déglu bu baakha baax li la yaay maaki di woyal mais bala may terminer dafa am legi lu malik wax jamale ko ci sama nawle bi tok di nawle teranga musa Buri Sall ngi nii ak Mamadou ndjay mais vestu yi rafet yi mom man sama boss mom bu ngeen delo Dakar tay ñew te andi wulen ko maak yeen du ngeen dugg ci dekk bi eh, sen grand gungé ci lène di suñu grand Louis ndjay and ak délégation nawle teranga ngeen nek ci dekk bi di fi def li ngeen fi def yalla len yalla taxaw gën yok and bi gën ko degeural tapé xol yi ndax dox bi ngeen nek diko dox ci Joal fadjout Joal fadjout yepp contante ci yeen monsieur le maire mu ngi ni tapal na len médaille kon bok ngeen ci nawle yi nga xamne bu nawle yepp defon ni yeen ci Joal fadjout kon heure bi wahatul waxatul Joal kon ma jox yaay maaku ñaawul sama chéri ñu wayal gan ñi ba ci kanam tuti ñu daal di ñoo alu alu en bii gars yi la. allo tuuti benn morceau. acca bii day leen di miime mooy waa télé bii dañ leen leen filmé. Ah. acca. Basiru Samba malik faya dal na mewul ka layan malik faya dal na mewul ka layan basiru malik faya dal na mewul basiru sambe malik malik faya dal na mewul Bassirou Sambaye Malik faya a dalnam Gor Kalayan. layan Bassirou Malik faya Faye Nam dalnam Kalayan. ka layan total salmala newena jal musa e gorandide kum ya se ngora I di de na jal e gora di de